dalal euh, Habib euh, Diallo mu tontu seen laaj yi ngeen di laaj ci ci ci wolof waaw. asalaamaaleykum Habib euh, Pape Oumar Keita journaliste sportif Seneweb Habib ñu ngi waajal match bu am solo contre Malawi bu confrontation mais gis nañ ne seen dernière sortie yi l'inefficacité offensive le pointer du doigt ak ak tamit yéen am ay par exemple contre Gambie on score du ñu am benn bu dugal si loolu dugal est-ce que mën nañ xaar match bi ne euh, match di ñëw contre Burundi euh, Malawi dañuy jouer ñoom fii jouer ñoom seen dëkk après mën nañoo wax ni kenn du dem ci match ne euh, bugguma gagné wala damay dem pour am défaite wala match nul à chaque fois bu ñuy dem jouer match dañuy am confiance pour gagner match bi mais après du mën nañ ne am nañ problème mu dugal bi yu bëri offensivement mais après ñun ay attaquant lañ yàgg nañu jouer attaquant saa ñu amee action boo xam ne dañ koy bëgg dugal mais après des fois ñu raté mais après dinañ liggéey ci loolu pour euh, jéem a gagner prochain match surtout euh, match bi di ñëw à